nuyoo sëñ Abdul Qadir mi ngi jaar ci sëñ Moustapha mu sant ma ma jottule ko mbooloon waaye nuyoo bi nag dafa làmboo ay cant ak i ngërëm yu bare bare kon nuyoo boobu jógee ci sëñ Abdul Qadir jaar ci sëñ Moussa Fati mu sant moom a jottali ko ma ne mi ngi làmboo ay cant ak i ngërëm yu yaatoo yaatu kon sëñ Abdul Qadir wax na ni mi ngi tàmbalee di yëkkati nuyoo ak siyaara boo xam ne mi ngi ak waa kër sëñ Diallo seen gépp di ko xam ne moo fi toog toogaayu Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu tey di Cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh na Ahmad al Khadim radiyallahu anhu di ko ziyaara magam ju baax bi fi jóge di Sëriñ Sidil Muxtaar di ko ñaanal fa mu jëm yàlla na fa yóbbaale ngërëmul Sëñ Tuuba radiyallahu anhu te yóbbaale nu ca ngërëm loole waaye Sëriñ Abdu mi ngi ñaanal Sëñ Muntaxa mi fi toog yàlla na ko yàlla defal toogaay bu jàppandee jàppandi te am barke mu ànd koon mboolem ay rakkam yi mu seqal sëriñ bi ak njaboot gi ba ànd ko nun taalibe yi ba àggale mboolem naal yi nga xam ni sëriñ Sidi Muxtaar radiyallahu anhu bàyyi na ko fi te muy naal yu mag yu mag a te li ci gën a fës di liggéeyu jumaa Tuubaa ji nga xam ne maamam Cheikhuna Ahmad al Khadim radiyallahu anhu moo ko jaayante woon ak suñu borom ca tukki ba ba suñu borom may ko ko mu teg ci bëtam ci baatin te fekk nekkul sax booba Sénégal mu del siwaat ba yàlla dogal mu wuy ji ab taawam di Cheikhuna Cheikh Mouhamadou Moustapha ànd ak mboolem murid yi tàmbali liggéey boobu ba fam ci yam si Mouhamadul Fadil jëlaat ñu toppe ko noonu ba mu agsi ci loxo yi sëñ bi fi jóge moom itam mu taxawee ci taxawaay bu am solo bi ci taxawaay bi mu ci taxawee nga xam ne kenn du ko sikki sàkka du lu nëbb di lu ama am solo macha allah ba fi yàlla dogal ab liggéeyam yem fi mu wàcc bàyyee ko rakkam ji gi sëñ waaye bokk na ci naal yooyu jumaa jële ca Ndakaaru moom itam doon loo xam ne xanaa bu ñuy wax lii dañuy wax ni rek sëñ bee ko jaayante ca tukki ba ak mu nekk ci dëkkam bii di Tuubaa nga xam ne pour ñu Touba rek Touba la gën a màgg pour ñu suuf su ñu suuf si Touba Touba la gën a màgg waaye juróom yooyu dañuy wax ne nag fa tabaarakallaa Sëriñ Sidi Muxtaar liggéey bee mu simb ca Ndakaaru moom itam ci jumaayu Ndakaaru ja kon moom itam man nañ ni benn liggéey féetewu ko kaw ndax moom itam fam ko defe moo tax mu am solo dañ ko faa soxla lool kon naal yooyu yëpp nag ak mboolem lum naaloon rek di këri Tuubaa yi nga xam ne moom itam doon na ko liggéey ngir waajal rek ëllëgi ëllëgi sëñ bi ngir waajal ëllëgi yoon bi ndax mel ni xam na fi yoon wi jëm ëllëg te mooy dañuy dem ba adduna bépp di ñëw Tuubaa rawatina ci bisu sëñ Tuubaa bii mu santaane woon di màggal gi assuré na ah, di fukk ak juróom ci ah, weeru safar ñu gën koo ci dix safar mu xam ne bis boobu day dem adduna bépp dañ ciy ñëw ak fukki ni fa di ci ñëw mu tàmbali woon di defar ay dalukaay yoo xam ni ak fu adduna man di àgg ak fi nit mën soo dikkee dañ fi fekk lu méngoo sa daraja te doo ni li fii day bu fi nangam amoon wala ñuy xalaat bu fi kenn ñëwoon tey nuñ koy def yaakaar na boobu xalaat moom amatul bu fi gan sàngam ñëwoon fu ñu koy ni seen Sidi Muxtaar jëlee na ko kon seen bu yooyu yëpp rek boo demee dalul mën naan loolu mel na ni nana leer na allah ak lu mel ni del tanzil yooyu yëpp rek di ay barab yi dalukaay gani sëñ Tuubaa yi nga xam ni ñoo fi ñëw dégg sëñ Tuubaa di ko seet si te ku ne nag ak bu dikkee bët muy ëndaale la muy xool rek lay gis am na ñooñu foofu la ñuy tàmbalee seen xool kon sëriñ Muntaxa naal yooyu yëpp yàlla ko àggale nu ànd ko moom ba moom itam nag liñ xam ci moom ci xeet ci sëriñ bi mu wane ko ci toogaayam bii ba ñëpp xam ni kat sëriñ Muntaxa nii tabaaraka laa xeet bi ñu xamoon ci moom ci sëriñ bi ak ñoom sëriñ bi mel na ne nag bi ak ayam dikkee jëfam wane na ko yal na ko ko yàlla defal lu ànd ko moom dem toog fi ba mu neex ko rek jëf fi ba mu neex ko mu soog kon sëriñ Abdul Qadir ak ay rakam ak mboolem waa kër sëriñ Darou Assane loolu mooy seenum jaaru ci sëriñ bi ak i rakam moom sëriñ Mountakha ak yoo waa kër sëriñ Tuubaa yëpp waaye loolu mooy seeni ñaan jëm ci ñoom jëm ci taal bi yëpp sëñ Abdou Khadir mi ngi dellu di ñaan magam ju baax ji fi jógee barki démb di sëñ Mbacke Fat Sylla ak ñoo jiitu yëpp moom itam fa jëm yàlla na fa yóbbaale ngërëmul sëñ Darou Hassan radiyallahu anhu ak way julee te yóbbaale yóbbaale nu ca ngërëm bi waaye boole nag njaboot bi fi des sàmm te teg na ci yoon la te yombalal nu te àggale nu àggaleel nu yàlla na ko yàlla def di yëkkati kàddu yi cant ak moom sëñ Abdul Qadir di ko tàmbalee rek ci rakkam yi nga xam ne ñoom la seqal kër gi ci doyloo gi nga xam ni doyloo lañ ko ko te moom mu wax ni ah gisul ni wax dëgg yàlla mat na sax njiit waaye rakam yépp ànd ak njaboot gi ni ko rek doy nga nu ci doon seen Daaru nee na loola lu rëy fi moom la ba tax na nooy na kon mi ngi sant waaye cant gi nag lim koy firndeele mooy jox boppam ba jeex tàkk te du ci dara bokk na ci li mu koy firndeele fas na yéene du leen yàqal dara du ngeen dégg mukk ni yàqal na leen dara ci jëf wala wax li koy firndeele mooy day fu ngeen jëm ba ni fii leen jëm nee na fas na yéene jiitu leen ca kanam bu ngeen xoolee seen ko ca kanam ak na foofa fu mu ba àgg ci bu ngeen néewoon dañuy daanu ci teen bi nee na mooy ci teen bi keneen soog caa topp kon loolu nee cant yim cant ci kóolute gi loolu rek la ko mbirnde mën a firndeele kon nag mu ne liggéey baagoo yéen a fi nekkoon démb ak bëgg démb àndoon kaa àndoon koo Maria àndoon koo wéyjur ya di rakk yi ak taaliba yi ak doom yi neex na mu ngoon tegaat na ko seen loxo di leen déglu lépp loo xam ne seen ngeen ba gis ni lii la luy defar la luy jëme kanam kër sëñ la ak di ko sagal sëñ Abdul Qaadir nee na jekk na ca loolee jiitu ca kanam ci wàllu yépp nag kon loolu mooy cant yi nga xam ne moom la waxoon ni mi ngi koy jot li mu jëm ci njaboot bi kon bi loolu jàllee ñu ngi ci kàddu yu cant ak i ngërëm di ko jëmee ci nee na suñ njaboot gi nga xam ni ne ñooy sotaati seen Darou Assane te seen tur bi nga xam ne moom lañ tudde seen mbooloo wala seen sequs la tudde woon leen ko biñ sosee mbooloo mi ci jamono muy bu noonu baaxil xadim ni ko suñu borom wa taawanu alal birri wa taqwa bu ngeen boolee ba noppi te mooy waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu ngeen boole seen bopp ci lépp loo xam ne daa ci diine akub teel bi akub ngeen di dimbalante nag ci biir ànd boobu ak biir booloo googu ak bennoo googu ci lépp loo xam ne dafa jëm ci mbaax ak ragal yàlla mbaax ma yeesu koo tuddee xosnal xoloq ànd ci jikko yu rafet yoo xam ni kan ku ne dana gërëm sa moroom sa moroom gërëm la su ko defee dana tax ah ñi nga xam ne radiyallahu anhum wa anhu ngeen mën caa bokk te mooy li nga xam ne buñ taseeg suñu borom suñu borom gërëm leen ci gëm gëñ ko gëmoon te wóolu ko te daa ko jaamu te wéetal ko te sellal jaamu nga ngir jëmmam rek waaye ñoom itam ñu gërëm ko gërëm na tàmbalee ci baaxee gën leen baaxee loolu yi nga xam ne moom la leen di gërëme ci moom la jóge moo leen ko defal waaye tekk di leen fay teraanga yoo xam ne tàbbi àjjana lay tàmbalee ñoom ak yeneen ya gën kawe tàbbi àjjana yàlla na nu ko yàlla boole defal kon sëriñ bi bi jógee ci ñooñu di sant nag mbooleem taaliba yi ak fu ñu fi mën di bàyyi ko fu ñu fi mën di ne ñoom itam seenu taxawaay ndax ñoom itam ah, bis bii bu àggee fii ñoom itam dañoo cee jàpp ne bu ñëwoon rek setaat yi la waaye ñoom itam gëm gi gëm seen dellu asan cofeel ci am tax na lu waa yëkkati ci seen dellu asan ñu ne andi ba tax na ah ñi ko yëkkati woon ñoom itam woyof na ci ñoom pay muy sëtaat yi kon sëriñ bi mi ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm ñoom itam xëy na nag gannaaw suba jàmm mooy bis bu mag bi duñ xaabaabal foofu dañuy bàyyi ba suba ak jàmm incha allah am na kàddu boog moom itam bu jógee ah, dana jaar fa mu mën jaar incha allah ca war bokk da nga ci bokk. sëñ bi nag mi ngi sant mbooleem ñi nga xam ni ah maam Hassan doon na leen lim léegi muy ay kilifa yoo xam ni ak i wëndaleeg yi am ci jàmm ak i xarit ak soppe. yoo xam ni ñëw nañ ànd ci bis bi ndax ñoom ñëpp rek lu ci waay def taxawaay bu ci waay taxaw moom nga ko defal moom nga ko taxawal xam naa lu jëm ci soññe yi am nay soññe ci wàllu ay liggéey waaye nag ni ma ko waxee loolu naan suba mooy bis bi maa ngi ah, ñaan sëñ Moustapha mi nga xam ne mooy jëwriñ bi yooyu ñu bàyyi ko ba suba jàmm xëy na mbooloo mi gën a tase muy sëriñ Abdou toogaayam bii di boo xam ne mi ngi koy soog toog toogaayu sëñ Delu Assane yàlla dogal ziyaara bi nga xam ni moom lañ doon def la treize janvier mooy ziyaara bi jëkk mu toog ko taalibe yi am ca ay ndénkaan ak cant yu ñu leen jottali woon toogaayu la dix-neuf zaawiya bii di ñaareelu toogaay ak mbooloo te bëggoon naa teew waaye am na ngantul mag am na ngantul ak mag ba tax na mu yebal ay rakkam ñu teewal ko fi te kooku ko jiitu di sëñ Moussa Fati mi ngi fekkoon sëñ Moussa Jombe ak seen rakk kon am na ay soññe ay ndigal yoo xam ni dañuy wax rek ni ay beesal la ci nii ma waxee léegi ci naal yi nga xam ne sëñ Sidi Muxtaar ba ko fee bàyyi sëñ Muntaxa fas ko ak taalibe kon sëñ Abdul Xaadir mii am na lu mel noonu kon sëñ Moussa bu subaa jàmm rek loolu lépp insha allah may fekke ak tal ak man man man koo jottali ni ko sëriñ bi bëggee waaye kon daal tey cant yooyu ak ngërëm yooyu sëriñ bi mi ngi sant nag sëriñ Mbacke Abdou Rahman mi nga xam ne moom itam kàddu yu mu fi tënk yaatu lool macha allah te ni mu ko ëndee doon loo xam ni kenn ku ne mën nga cee jëriñu borom xam-xam bi ki taxul ab xam-xamam sori ni man lépp rek. def na ci laa biir ak woyofam képpul xam-xamam ba tax borom xam-xam yi rek di ci mën a jariñu waaye kon ni borom xam-xam yi di wax ne al-aarifu doona maa moom la roy te mooy nit yàlla yi dëgg-dëgg yi àgg ci xam yàlla bu ñuy wax ak bindéef yi ngir ñu jariñu dañuy wàccee seen martaba wàcce wàcce ba suufee fa ñuy waxe dañuy suufeel ah seen daraja ah suufeel seen xekma ndax loolaay tax nañuy waxal man cee jëriñu kon moom roy na loolu ci aarifuuna billah yàlla na ko yàlla fayal nu yàgg seq lii daanan ko seq lu jiit tey yàlla na ko yàgg seq di ko yàgg woo mu yàgg noo wii si te lépp rek di jariñ lu àdduna ak aaxira loo xam ne dañ ko jariñoo ci barkeb Sëñ Tuubaa barkeb Sëñ Gallas Sam di sant yi mboolem ñi ko doon jàppale ci liggéey bi euh, Serigne Mame Hassan ak Serigne Mouhamadou Hassan la Modou Hassan ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di sant leen gërëm kon bi loolu jàllee nag ñuy fàttali rek nag ni di sant yi nag teewaay bi teewaay bi fa tabaarakallaa dal gën dal kenn déggul wax dëgg yàlla coow lu baree bari suñu wàllu góor ñi moom daa mel ni nooyi sax xanaa xamuñu koo def xëy na wàllu soxna yi ñooy munu muni tuuti te munu muni ji sax xumut lool waaye noo ngi leen di ñaan nag soxna yi ñuy roy ci góor ñi ndax wet bii kat boo dawtalee sam nopp doo dégg dara waaye soxna yi nag da nga dégg mun-mun kon nag roy leen ci seen i kilifa ndax seen borom kër rek fi ne ak seeni i mag ak seen i kon roy ci ñoom ndax royante lu am solo la mbooloo bu boo xamee ni kenn ku ne ka la jiitu mel ni dalaa gën wala am lu mu la nga di ko roy rek day mujj ñun ñëpp nu yëwén ñun ñëpp nu mat te loolu rekk nag mooy solos booloo ak bennoo wàllante jikko yu baax ak melokaan yu baax day mujj ñëpp baax kon jotaay bi dal gi yéeme na lool macha allah waaye yéen soxna yi nga xam ne nag yéen a ngi mun ni ngeen fas yéene loolu buñ ca àggatee suñuy sant ci dal bi niñ ko waxee ci góor ñi fekk yéen itam noonu ngeen ko defe ndax góor baax na jigéen baax na te jigéen warul rekk ni jigéen laa jigéen jigéen rekk la déedéet bu la yàlla booleeg say càmmiñ yu góor say borom kër say bokk da ngay góorgóorlu jéem leen a niru ca dañ la rawe bu doon góor gi sax bu ko jigéen de gënee fenn wala mu rawe ko fenn war naa roy ci moom kon nag dal gii moom daa bokk ci li nga xam ne dara ëpp ko solo ci mbooleem li ñuy def ndax nag kii ñëw di xool di seetaan si muy seet waa kër sëñ Darou Assane gi may dégg seenu melokaan ci loolu rek lay mën a moom ba luñ ca tegaat muy lu rëy ci moom waaye bu loolu xasee damm nag daanaka leneen luñ ca mën a teg dootu am solo. te dégg nañ bu baax a baax càkkutéefum sëñ Darou Assane lim sàkku ci képp koo xam ne dalay jox am njabootam la ko ca ëpp loon yitte mooy nga def ci moom yar ak teggin te yar teggin mooy lii mbooloo mu bare nii macha allah nga dawtal sa nopp mel ni daanaka nuyuwuñ loolu rek mooy yar ak teggin ci la tàmbalee nag leneen lu cay ak toogaay bu jekk bi kenn yëngatuwul kenn demul dikkul loolu daal ñu ngi koy fàttali bu baax a baax ñu ngi ciy sant waaye ñu ngi ciy soññee bu baax a baax ñu def ko muy sun melo xam ni ku dikk fekk na ci ku dem bàyyi ci fu ñu jëmit yóbbaale ko bu ñuy dellu si indaale ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu am na jërëjëf ci cant yi nag ah Minanul Baaxil Xadiim ci njiitul Serigne Cheikh Mbaye Fallo ko àndal wax nañ ni yéen ñi nga xam ne yéen a féete ci wàllu média di jotal xibaar yi ak di ko tasaare ak di ko wane ci wàllu yëpp rajo yi ak télévision yi ñu di sant ñu ngi leen di gërëm gis nañ seen taxawaay. ngeen teel a lool macha allah ànd ko ñoom te tàyyiwu leen ci benn yoon li may wax ci dal yéen tam noonu ngeen ko defee def ngeen seen liggéey ni ngeen ko war a defee te amul benn yëngu amul benn jaxasoo noonu li ngeen ko daan defee kon ñu ngi leen ciy sant ñu ngi leen ciy gërëm ñu ngi ñaanal seen i kilifa di leen ñaanal. fu ngeen bëgg a àgg ci seen liggéey yéen a xam yal leen fa yàlla àggale te may nu gudd fan ak wér ban yàgg a ànd liggéey bii te naqati ngërëmul seen Daaru Asan ak mboolem nag fu fi waay jógee nag te jàpp ci liggéey bi ak noo ñëwee ñi sant ñi ngi lay gërëm foo bëgg a àgg yàlla na fa yàlla àggale wasalaamu aleykum wa wa barakatu amiin